mbokk yi seetaan MMD Media asalaamaaleykum euh, comme li ñu koy baaxoo bu amee benn événement wala benn xew-xew ñu def ci ñun li ñu jàngat li ñu ci xalaat donte woon ne appréciation yi mun na mun na wuute mais li ci am solo mooy l'essentiel ñun li ñuy xalaat yal na doon fi dëgg ji féete. démb ba léegi am na presse bi ñuy bind ay journalistes am na ay organisation yu droit de l'homme yoo xam ne ñu ngi kaas way takk der yi dem nañu jàpp loxo benn sëriñu daara ku tudd xaadim Euh, li indi wax ji mooy sëriñ daara bi dafa jëng yenn ci ay taalibeem jéng leen ci ndigalu seen ay wayjur ñu ni loolu yoon wu Sénégal daf ko ne mooy lu tax ñu jàpp ko ñëpp di ci lawti lawtee ni sëriñ bi dafa bëgg delloo soit ak njàmm démb ak tey boo seetloo chronique yi boo seetloo xalaat yi daanaka sëñ bi xaw nañ koo tam dëmm amul luñ ñu ko taxewul may nag Sénégal mënu mënoo comprendre jéng taalibe bu të xewi na ci Sénégal waaye may caga bi carte bu tax muy jakkatu ci mbedd mi xewiwul euh, jéng taalibe ñetti fan def ci moom ay càngat wala ay ñaan yu tax mu génn xelam ci saay-saay génn xelam ci banditisme toog ci daara ji jàng am xam-xam dafa xewi alors joxe autorisation ay association góor jigéen xewiwul mais c'est très dangereux man ak sama moroom képp ku aw ci daara bu fekkee dangaa të jéng nañu la mbaa nga fekk ñu jéng sa morom boo xam ne dafa të. man bi coow bi commencé depuis bërki démb ba léegi te gisuma benn daara gisuma benn kilifa diine bu ci wax man wax dëgg yàlla dama jaaxle parce que war nañu recadrer ñiy wax gis nga waa organisation droit de l'homme yi ñuy wax yenn saa yi di jàkkaarloog ñoom di leen affronter dafay jaadu yow mënoo bu ñu rayee nit ki nga ni ki rayaate bu ñu ko torturer alors fàtte nga ki ñu rey. bu ñu violé nit ki nga ni ki ko violé bu ñu ko tàpp parce que fàtte nga ki ñu violé bu ñu rendee nit ki nga ni ki ko ki ko rendi nañ ko dugal kaso bu ko kenn def lenn parce que fàtte nga ki ñu rendi mais yooyu ngay kaas te bu ñu waxee nga ni góor jigéen wala lesbienne bi wala kii jaay sàngara wala kii def lu ko neex ci mbedd mi am nañu droit def loolu bu ñu leen xañ seeni ay droit mais sëriñ bi droit bi ko jox mooy mu encadrer taalibe bi kenn mënta fexe ba nit kuy jàngal xale am du ko duma bu laajee jatang dañu koy jatang bu laajee tënk dañu koy tënk loolu lañ mës sa xam ci daara mais bu soppeekoo nag bu fekkee dafa soppeeku yéen ndongo daara yi ngeen nonga ni dafa soppeeku d'accord tant tant mieux tant mieux waaye léegi da di comparer ñi nga xam ne ñooy jàppi woon suñu xaadim jàpp nañu ko photo xale yi jatang tasaare photo yooyu ci réseaux sociaux yi jox ko journalistes yi waaye ñi photo xale yi jatang ñoom li ñu def noonu muy photo jatan bi publier ko ci àdduna bi yëpp ñoom li ñu def garaawul par rapport ak ki jatang kan moo gën a garaawle mais ki publier moo gën a garaawle mais ñooñu dara du leen ci fekk parce que ñoom ñu nekk ci moment wu vilipendé ñoom ñuy weeji sëriñ bi nga xam ni amul ndey amul baay amul bàjjen amul ku ko taxaw ñi bokk ak moom benn xadara benn ëtt ñu ëpp ci ñoom doon ay ngundum doon ay ragal ñenn ñi jiital intérêt tax duñu défendre seen ay nattangoo yéen doomi daara yi jóg leen bu dëgg jibee ngeen wax ko ngeen di jàppalante ci seen biir amul kenn ci yéen koo xam ne jàng nga ci daara ba nekk jàngalekat te daara ji nga nekkoon gisoo fa ñuy yeew taalibe gisoo fa ñu jëng ab taalibe loolu mooy réalité daara ñoo mos di ànd ñun añun ànduñu ci daara yi bon yi nga xam ne dañuy indi tu tànk yi fii Dakar di leen yalwaanloo di leen bàyyi ci sedd bi ñuy taxawaal ci ñoom ñeneen di nekk ay bandi ñun loolu duñ ko cautionné duñu ci ànd benn yoon du ñu ànd ci sëriñu daara bi violer ay doomam wala ay ndongoom du ñu ànd ci sëriñu daara buy def pédophile du ñu ànd ci sëriñu daara buy def homosexuel euh, homosexualité duñ ci ànd certes duñ ci ànd waaye teewul ñu xam ni sëriñu daara yi ay doom yu amul bàjjen lañu Sénégal ñëpp sawar ci seen bojj waaye takk der yi dañ cee sawar attekat yi dañ cee sawar taskatu xibaar yi dañu cee sawar organisation euh, droit de l'homme yi dañu cee sawar waa société civile dañoo sawar ci ñoom saa bu ñu waxee ñu ni sëriñ ba nee na nangam ilimaan ba nee na nangam waaw yéen ngeen toog noppi di seetaan seen bopp yéen ñu leen di rey digg ba ci bu ndaree kàmm di décrédibiliser li ngeen yor te yéen li ngeen yor jóge ci yàlla yàlla nii leen li ngeen yor man maa ko wàccee te man maa koy sàmm doo leen doo leen jéem a affronter ñi leen di attaquer yéen a leen gën a dëgër yéen a leen gën a nekk ci base gën a leen tiitaange gi nekk ci seen xol yi bëgg alal gi nañ ko génne ci suñu xol yi. di doy loolu lu ñu am te dëggal ci xeex bi ñu nekk amul benn woote bu gën a dëggul islaam yonent bi sallallahu alayhi wa sax bi koy jibril wàccee alxuraan ci moom daf ko daf ko daf ko gann daf ko xëq dafa dem ba yonent bi appaat dem ba sonn dem ba jaaxle daw ñëw ci euh, sayyidatna Xadija ni ko sàng ma sàng ma sàng ma ñu soo ko set nii li dikkal yonent bi jinne la wala malaaka ñu xam ne yonent bi jinne du ko affaiblir waaye malaaka lay doon kon nga xam ne alquran law anzalna hada alquran ala jabalin la raaytuhu xaashian mutasaddian min xashyati rahman yàlla bu wàcce woon alquran ji ci kaw xeer la raaytuhu xaashian mutasaddian min xashyati rahman kon montagne yi gën a ci àdduna bi antanul alquran nga wax koo jël alquran dugal ko ji dënn nit ki moo ko mën a pratiquer war koo amal njëriñ du yomb euh, nañu nafeq gi néew na daara bu nekk ci àdduna bi te du ñu jatal xale bu fa nekk tër te du ñuy tënk parce que sëñ bi day am benn responsabilité boo xam ne daf lay jox nga naan wala mu jox la nga sangu wala mu aar la ci yenn ci ay conséquences loolu loolu loolu loolu loolu loolu la nekk débat ba ñëpp jàpp ci sëriñ bi di ko lawti lawtee démb ak tey mel ni moom ko amul bàjjen ba noppi sëriñ yi daara yëpp noppi kenn waxul ci rajo kenn waxul ci tere tele kenn deful vidéo kenn posté wu ci réseaux sociaux ñëpp àndandoo ni tekk bëgg a cautionné li ñu def muy jàpp xaadim dugal ko ci kaso bi photo ay xale yu ñu jéng euh, wax leen dëgg waay waaye daara joo gis am na foton xale waay xale ku ko jàngal di nga exiger yenn conditions yi ci moom waaye ñëpp noppi sëñ bi mel ni ko amul bàjjan organisation yi di wax ñu daganal fi góor jigéen daganal fi jox jigéen carte muy jaay boppam daganal fi yeneen ak yeneen waaw kii di yar ay xale yenn ci ay taalibe yu të mu jàpp leen photo leen dóor leen ay gendarme ñoo jàpp ko photo action yooyu publier ko ñu koy lawti lawte démb ba léegi mun nañ ko recadrer bu leen photo est-ce que amoo leen solution nangam nangam xëy na sax mu am kiis bu mu leen di jox nañu waxante dëgg gis nga ñiy jiite ñu dañoo xamul dara ci daara réalité daara ñun ñu ci nekk ñoo ko xam yàgg nañu am benn taalibe bu të ñu war koo def kiis wala ñu war koo dott ci daara ji dañu koy yeew ñaari fan ñetti fan yéen ngeen ni loolu amul léegi loolu ñu bëgg ko soppi léegi ñun loolu dafa xew yi d'accord xew yi na mais lan moo tax joxe carte caga xewwul loolu dafa xew yi d'accord xew yi na lan moo tax jox ay góor jigéen autorisation xewwul non écoutez nañ leen ragal yàlla ci suñu ay démarche te ñun ñu nekk ay doomi daara ñuy jàppalante suñu biir bañ ñu topp politiciens yi nga xam dominé nañu ci ay caaxaan bañ a topp wax àdduna yi nga xamante tax nañu fàtte ñu suñu ay principe al islam la lay taxayyaru diina du soppeeku yàlla nee na inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nit bu demee ba seen jikko environnement am ak nañu mel yàqu parce que ñoom ñoo yàqu yàlla du changer li mu composé walla ak nit ñi ak ni mu binde ak nit ñi nañu ragal yàlla suñu ay propos lu ñu wóorul bu ñu ci wax yéen mën ngeen a fexe ba tàqale daara ak jéng yéen ku mën a fexe ba teqale daara ak ak jéng waaw yow nga xam mais jëng ak daara moom Sénégal ñoo mus si ànd te képp ku ma seetaan aw daara di nga confirmer li ma wax képp ku ma contesté itam ci vidéo bi nag xëy na awoo daara yow la engagé sama yoon nekku ci parce que man monde bi may wax mooy monde bi ma tàggat man tàggat ñi mel ni man ñu bëgg ñu def ay njumte ci ñun ñu tam leen ay dëmm ba mel ni amuñu bàjjen ci Sénégal loolu jaaduwul loolu jaaduwul bu ñu ko nangu alxuraan wayeful du dugg ci dënnu noonu te àndut ak force segam sallallahu alayhi wa sallam moo jaar ci conséquences yooyu saka ñun mbokk yi nañ delloo saat xol yi xel yi ci yenn ci réaction yi sama nattanga journaliste yi souvent ba ñu topp émotion aussi bu ñu topp itam ñoo xam ni xamuñu di wax ci benn milieu ñun itam yóbbaale ñu te fekk na milieu boobu à ses propres réalité dafa am ay réalité boppam bépp monde am na ay réalités boppam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.